dal leen ak jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi mbokk yi xibaar yaa ngoog dañ koy doore ak lakk-lakk gu métti métti bi nga xamante ni am na démb foofee ne tamit central bu Thiès 4 di du matin jëm 5 euh, heures du matin mu nekk nag lakk bu métti métti boo xamante daal daanaka balaa sapeur di ko métti daal boo fekk ne 9 heures ci suba jot na lu ci mënti am daal lakk-lakk boobee daal daal dina bale ay millions yu bëree bëri gën gaa gàtt sax suñu mbokk naataango ya nga xamante ni nag ñoom ñoo ko fekkewoon daal li xam ne moom moo di gën ngaa néew daal téeméeri millions ànd nag lakk-lakk boobee daal di dem li ko andi nag daal jàpp nañ ko nag foofee ne ay branchement yi nga xamante ne daal jaarul benn yoon ci wàllum courant loolu rek moo mën a andi la nga xamante ni rek moom moo di lakk-lakk boobee daal di am démb foofee ne commande centrale ay commerçant yu sëngéem ay commerçant yu xamante ni daal daanaka ñoom lépp lu ñu amoon ci alal def ko ci marché bi nag mu jaaree fa dara génnul ay jaaykatu cuuraay ak jaaykatu parfum daal daanaka seen ay boutique ñoom ñëpp daal boo fa demee dóom rek nga fay fekk tellement lakk-lakk gu metti ba nga xamante ni démb daal nemmee ko dañ ko foofee ne commande centrale bu askan wi daal di ñaawlu bu baax a baax anam ba nga xam te daal noonu la match bindoo xat-xat bi ay nit ñu ñëw daal daal di lal ci kaw yoon di fa jaay ba tax sax démb itam sapeur pompier amoon na ay jafe-jafe ngir dugg ci marché bi ngir mën a fay la nga xamante ni moom moo di lakk-lakk boobee ne loolu saa itam moo daal askan wi daal jàpp nañ ko nag mbir daan donte nag fan yi la ñu weesu amaloon nañ fa ay déguerpissement ngir fexe daal ba marché bi tegu ci yoon nag mbir mooy ba tey mënta am ba tax sax tey jii moom moo daal di jur lakk-lakk gu métti gii ana ñooy saafara mbir mi nag lu ci mënta am daal daal ñoom commerçant yi daal jàpp nañu ko nag bi lay yoon na yoon def liggéeyam na nguur daal di jël ay daal di fexe daal ba képp koo xamante ni tegu woo ci yoon ngir mën a sarto ak la nga xamante ni loolu mooy jël maamu marché bi nga daal di jóge ca ko yoon ba ndax nag ñu bari jàpp nañ sa itam marché central bu ci sa daanaka fu waay neex jaay fu waay neex lal ba tax sa autorité ya nga xam te nag ñoom ñoo fa nekk commerçant itam itam sax dem ba xam na ne ñoom nag daanaka leen rek moo leen ñor moom moo di andi juuti dem seen yoon jaraafu zone nord nag di Mamadou Diakhaté nag moom li mu jàpp rek moom moo di euh, fii ay fan daal ay mat sëkk ba marché bi daal mën a tegu ci yoon ba itam sax képp koo xamante ni daal fa teg sab taabal di jaay tegul ci yoon di fa daal di jóge ndax nag daanaka saa lakk-lakk boo xamante ni quatre heures du matin ba neuf heures sax pour mënu dugg nag ay jafe-jafe la yoo xamante ni daal daanaka dafay war a jeex tàkk daal di dem ba tey rek ca diwaanu Matam waxoon ca gox goxaat ya nga xamante ni tam ñoom la mbënn mi daal di laaloon muy sax ña nga xamante ni daal dañoo daal di jege dex bi ndax nag ndox mi walloon ba daal di ñëw nangu seen ay kër ak yi ak ñoom nag daanaka lenn rek moo leen jaaxal ba tey moom moo di ndimbal la nga xam ni nag tuddoon nañ ko moo di juróom-ñetti milliards yooyee ñoom nag ba tey daal gisuñ ci dara waa Matam nag ñoom daal jamono bii lenn rek mooy jaaxal moom moo di gisuñu benn yoon daal ci ay kër yu nga xamante ni wala ay fam yu nga xamante ni daal itam jàppoo nañ leen ci jafe-jafe yu nga xamante ni nag ñu ko doon dund am ci sax itam ay nit yu nga xamante ni nag ñoom daanaka bayoon nañu ay hectares hectares ngir lu ñu mën a dundee waaye loolu nag daal ba tey gis ñu ko ñoom daal li ñu jàpp rek moom moo di ay promesse la yu nga xamante daal dafa ànd ak ngelaw li daal di dem bu ngi sukkandikoo daal moom Yaya Ndiaye yëkkati na ko di président bu daane maayo émergent moom nag daanaka sax bi mu waxtaanee ak suñu naataango yi nga xamante ni ñoom ñoo di waa RFM li mu jàpp rek moom moo di promesse yooyu yëpp daal daana daanaka mbiru politique képp la ndax nag jamono bii ñoom askan wu nga xamante ni ñoom la ndox mi daal di laal ba tey jii nii gisuñu benn yoon ndimbal lu nga xamante ni doon nañ ko fan ngir ñu wees toll ci juróom-ñetti milliards ngir mën leen a dimbali ci xat-xat ya nga xamante ni moom lañ daal di nekk gannaaw élection yi itam daal gisoon nañu ay image yu nga xamante ni mu ngi doon circuler ci ëttu xarala lay bees yi nii di waneen daal ay machines yu nga xamante ni ñu ngi ko doon nangu ba sax ñu ko doon jiiñ moom mi fi nekkoon candidat foofu yeneen ca diwaanu maa maabo di Aliou moom nag sax daal dinay weddi kàddu yooyu waaye léegi nag mbir mi mujjee naa feeñ yëgay daal moom daal moom moo daal di nangu lii di machine yooyee ne foofu yéene ci diwaanu Taïf ndax moom nag sax ñu ngi nii xam ne que daal gannaaw daal ba nga xamante ni nag maye woon na ay machine ci ak gox ba nga xamante ni moom moo nekk foofu yéene ci ci diwaanu Taïf ngir nag ñu mënoon koo votel Pastef nag daf ko fa daal daal di dóor ay dóor yu métti yu métti war nag ci ëllëgu élection yi daal daal di jël seen oto di aw gox par gox dëkk par dëkkaat di nanguwaat la nga xamante ni loolee moom moo di machine yu nga xamante ni daal mayoon nañ ko askan wa yeewoo foofee ne ci diwaanu Taïf ñu daal itam dem ba tey rek ci diwaanu Koungani nekk itam ca village ci département bu Bakel foofu nag daal daanaka nag benn waaye daal lañ daal di fekk nag mu daal di génn àdduna moom sax ne leen dafa laboon gannaaw loolee rek sax lañ daal di gis ab néewam ci dex bi bu ñu sukkandikoo suñu naataangoo ya nga xam te itam daal ñoom ñoo nekk foofu moom nag sax néew sax daanaka nee nañu xawoon naa yàqu ba loolu sax itam moom moo waral nag ña nga xamante ni nag ñoom ñoo di kilifa yi nekk foofu daal di am ab lanket ngir xool dëgg-dëgg ana lan moo waral faat woowee ne kono bi moom mënuñoo xam kan la mënuñoo xam fan la jógee waaye na kilifa yi ñu ngi xool ana naka la ñuy def nu mu gën a gaawee ngir mën koo daal di jébbal boroomam ñu daal di wax itam ci kàddu yu ñagas ya nga xamante ni itam daal moom Moustapha Diakhaté nekkoon fi député daal dina koy yëkkati jëmale ko ci askanu Sénégal moom nag ci ab waxtaan boo xamante ni itam daal amoon na ko ci benn télévision bi nga xamante ni mu ngi fii ci diwaanu Sénégal moom mi fi nekkoon nag président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar di Moustapha Diakhaté moom daal daal dinay naqar lu baax a baax ana naka la sénégalais yi war a jëlee ret lii di assemblée nationale daal di ko teg ci loxoy Pastef li mu jàpp daal moom moo di daal Sonko daal ab manipulateur la ndax moom nag daal xam na ni sax dafay manipuler ba daal di koy wax askan wi moom nag jàpp daal askan wi kon war ñoo fal koo xamante ni daf leen daal di manipuler kàddu yooyu nag moom moom mi nga xamante ni itam daal moom di Moustapha Diakhaté moo ko daal di yëkkati ñaawlu anam ba nga xamante ni noonu la peut-être daal di amee ndam ci élection législative yi ñu weesu lu ci mënti am daal moom Moustapha Diakhaté nag victoire de Pastef daal neexu ko benn yoon ba sax waral jamono bii vision yi di ko nakarlu bu baax a baax te booba jamono nag ñoom patriotes yi ñoo ngay manifester la nga xamante ne nag moom moo di seeni victoire ayib dafa itam daal bokk ci parti Pastef nag daal dinay àddu ci polémique bu nga xamante ne nag fan yëpp ñu ngi koy waxtaanee ci mbirum Ousmane Sonko ndax day dem assemblée wala itam daal dafay daal di préserver poste premier ministre am moom ayib dafa nag li mu jàpp rek moom moo daal loolee mbir la mu nga xamante nag dañ koy waxtaanee ci biir nekk waaye duñ ko daal di étaler ci biir askan wi dafa nag dem sax banaan même bu Ousmane Sonko sax am na ay débat député yu bëree bëri yu nga xamante daal ñoom war nañoo mën a jël place boobee nekk nag la nga xam te itam daal moom moo di président assemblée nationale waaye nag am daal moom di Ayib Daffé daal dinay jaajëfal bu baax a baax kii di Fadilou Keita ak Jamil Sané ci ah, liggéey bu rafet ba nga xam itam daal def nañ ko ngir daal di taxaw Ousmane Sonko ci élection législative yi ñu daal di jógee xale yi Sénégal nag léegi ñu bëri ci ñoom nag daal di eh, yëngu ci wàllum arnaque waral sa itam daal ay cas yu bëree bëri jamono xamante ni xele waaye rek leen rek moo tax jóg moo di fexe daal ba daal di am xaalis te duñu sonn loolu nag saa itam moo war nag kaawu nag bi jamono bii moom mooy daal di lëmbee réewum Sénégal du Cissé ak kii di frère am di wóoki turu Ibrahima Fall ñoom ñaar ñëpp daal daanaka ay complice lañu moom nag leen rek moo nekkoon seen métier moo di dem ci marché daal di def ay faux maanaam daal transfert ñoom itam daal du ànd benn yoon ak teggi ndax dañ ko def itam mujjee ko retiré waat daal di dem seen yoon yéen saa ñu ñëw ci marché jël lu nga xam daal ay valeur yu bëri bëree bëri la daal di yóbbu marchandise bi buñ transféré xaalis bi nag itam daal di wootewaat ngir récupérer ko loolu nag sax waral nag ñoom xaw na ñoo rey askan wa nga xamante ni ñoo nekk foofu ne ca diwaanu marché Sandaga ak itam Colobane waral nag itam mbir mi sax ba nga xamante nag yàgg naa am ñoom ñi nga xamante itam daal ñoom ñoo di waa bu Colobane nag daal di jot ci mbir mi ibbi ci ab l'enquête sax mi nga xam ne itam daal moom moo di cerveau groupe bi daal moom de ni leen la nga xamante nag moom moo di euh, transaction bi ci lañ ko daal di tegee loxo lu ci mënti am daal ñoom ñëpp daal daga dañuy leen da ngay ne leen yóbbu leen ca kanamu yoon lu ci mënti am daal ñoom ñëpp daanaka jamono bii daan nañ leen placé euh, sous mandat de dépôt li leen toppee nag moom mooy association de malfaiteurs escroquerie et complicité de vol moytuwul nag daal semaine bii di ñëw lañ nar a taxaw ak àttekat bi foofee ne ci tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru Njaay yeneen i xale itam daal yu mel noonu lañ daal def moo di ñaari xale yu jigéen yi nga xam itam ñoom daanaka lenn ret moom moo nekkoon seen liggéey moo di daal fexe ba daal di dem ci seen i xarit yu nga xam daal dañuy yëngu ci wàllum produit cosmétique daal di fay dem nag itam daal di fay commandé lu bëree bëri ci en ligne waaye nag itam sax loolee buñ ko jotee dañuy daal disparaître kenn du leen daal di gis mu nekk nag ay mbir yu nga xam daal ñoom ñaari xale yi jigéen itam daal daal yàgg nañ ko def ay nit waral saa itam daal moom mi nga xam te ni moom moo di Adja Nogay Seck daal daal di commandé commandé lu ëpp ñaar fukki junni ci ay eh, produits ya nga xam ne daal ay cosmétique la daal moom moo di Thierno Ibrahima Diallo di ab commerçant bu mag a mag livreur yi leen joxoon nag daanaka pour andi leen nag saa yu ñëwee rek dañuy wax ne kat envoyé ko waaji xaalis bi bu yàggee nag kenn du leen gis nag na sax ñoom fi ñu doon joxee rendez-vous dëkkuñu foofee ne gannaaw sax ba nga xam ne itam daal daal nañuy bind ab plainte ñoom ñi di commerçant yi nag noo leen jàppee ñaari xale yu jigéen yi ba ñoom ñaar sax itam daanaka jamono bi caabi daf leen daal di féete gannaaw ñu xaar ana ban dogal la yoon di jël ci seen diggante ñoom ñaari triyaa yu mag yooyee tëjee ko itam ak mbirum trafic moo waral ñoom gendarmerie bu jam ñaa itam daal daal nañuy jàpp ay samba yu nga xam te nag ñoom daanaka seen liggéey moo nekkoon daal daal di tasaare li nga xam te ni moom drogue ci diwaanu diggante jam ñaajo Kër Masaar ak yi ci aju loolu nag itam sax moom moo waral mari ci liggéey bu mucc ay bam itam daal def na ko foofee ne ci diwaanu jam ñaajo le 19 novembre bi ñu weesu maanaam barki démb waral nag ñu daal nag ñaar ñaari nit yoo xam te itam daal ñoom ci seen kër la leen fekk daal daanaka yàmbaaj yu bëree bëri moo ki daal di nekk ay ma daal juróomi téeméeri kilogramme ak lu teg daal fekk nañ ko ci seen lox war a ñoom ñëpp daal daan nañ leen jàpp dagat dagay leen yóbbu leen ca gendarmerie placé leen fa en garde à vue di xool nag ana fan la wànnent di mujj ak gëtam euh, mbokk yi mu ngi noonu nag lii moo gënoon fos tey ci seen revue de presse am mbégte kontaante ni ngeen di ànd ak nekk di leen jox di jàmm ci seen revue de mbokk yi Euh, duñu yam foofu ndax xam nga ni nag bis bu nekk dañuy ànd ak yéen ca la nga xam ni nag daanaka euh, moo gën a fës ci xibaar yi ci seen euh, faits divers yi ndax nag bis bu nekk dañ ciy jot yu nga xam te daal il faut que yéen itam ñu daal di koy waxtaan ak yéen ndax mbokk yi ku ne xam ne ni daal diggante mois de novembre jëm décembre moo du moo di dañuy ñibbisi ci diwaanu Sénégal ngir ñëw euh, daal di fi force yi tànk itam sax am ñu nga xamante ni yàgg bi nga xamante itam dañ koy yàgg foofee ne ca bitim réew day tax itam daal ñoom dañuy bëgg ñëwaat ngir mën a ñëw change moodu moodu bii di wuyoo ci moom mi ngi dëkk ci diwaanu Touba Mbacké moom Touba dëkk te sax moom boo xoolee euh, daanaka yàgg na fa mu nekkoon ca bitim réew yàlla dogal nag xam nga boo fa nekkee gëj Sénégal yenn saa nga gis say xarit statut ay nit da ngay bëgg am maanaam euh, cofeel ci nit ñooñu moom nag lépp fa la commencé ci benn xaritam boo xamante ni daal mu ne woon jigéenam la daal di woon statut benn xale bu jigéen bu nga xamante ni daal euh, daf ko neex lool mu daal di koy ñaan xale bu jigéen bi jigéenam bi daal di ko koy may moo xale bu jigéen bi nag xam nga xale yi jigéen yenn saa rek ñoom bu ngi déggee rek diw mu ngi mu ngi bitim réew dañuy xam ni nag ñoom daanaka kon seen wërsëg yëpp ibbeeku na loolu nag sax moom moom poussé xale bu jigéen ba ne kon moom comme que kii daal eh, ma nga bitim réew xaaral ma profité ci moom waa ji message ko ñu waxtaan ñoom ñaar dem ba commencé kon dem ba commencé di di di demlante xam nga rek di waxante moom xale bu ñu itam sax dem bay commencé fréquenté kër waa ji tellement que nag waa ji daal dafa jàpp ni moom li muy wër am na ko ci loolu nag xale bu jigéen bi gëmloo waa ji ni ko man dama laa bëgg te aw ma caaxaan saa yoo pare pour takk ma rek pare naa noonu xam nga nag yéen saay e, jigéen di day ay projet ci loolu nag moom xale bu jigéen daal ci la wax waa ji ni ka man dama am ay projet dama bëgg a def formation ci benn domaine bu siiw moo waral nag moo expliqué ko waa ji waa ne ko loolu amul problème wax ma rek sa formation nu muy demee après incha allah man tamit dinaa def lépp loo mën. ndax man su ma sañoon sama soxna day liggéey am diplôme noonu rek xale bu jëm daal di d'accord daal di dem laaj ay wax waa ji ne ko kat moom daanaka li nga ko laaj ci ci xayma daal toll na ci six cent quatre dix sept mille quatre-vingt-dix-sept mille maanaam euh, téeméeri junni yu teg ñaar teg ñaar fukki junni ak juróom-ñett bi mu demee gëstu nag ba xam loolu. Euh, waa ji daal di koy transféré xaalis boobu ne ko nag li ma bëgg rek mooy nga jàng loolu mooy premier deal bi nga xam te ne dox na ci diggante xale bu jigéen bi ak waa ji ñoom ñaar ñu ngi doon diggante te nag saa diggante waa ji daal day naan waa ji maa ngi jàngi maa ngi dem xam nga rek dem sax ba ko rendre compte seen kuréeg yooyu nekk xale bu jigéen loolu lépp ay naxaate la woon jàngiwul benn yoon mais waa ji xamu ki moom waa ji bu xale bu jigéen bi amee xew wax Aliou Diouf Sarr def sàmm laa ba parce que benn maire boo xamante ni gëmloo ko ni que kii mooy sama yaay maire bi itam daal di wax ak waa gi ne ko ah sama doom jikar wax na ma say wax jàpp ne daal boo ñëwee dinaa la may soxna ndeke yëpp ay naxaate lu la woon yu nga xamante ni moom xale bu jigéen mi daf ko daal di lal lal ak waa ji moodu bu ngi nekkee ca bitim réew wala itam yenn gars yi xam naa sama cousin Bokar ci am yëpp naa ko sañ naa ko tudd yenn saa yi mën nañ la woon ne la kat dama laa nam damaa nam sa kanam wala yenn saa xam nga de wax ak yow ba envoyé loola sax say vidéo moom xale bu jigéen bi rek loolu moo ko dal ci waa ji waa ji ko laaj ay vidéo mu envoyé ko waa ji ndax jàpp neen daal moom waa ji moom ab naxa naxa la xam naa ni noonu ñoom ñaar bu ñu waxtaanee di wootante appel vidéo nekk nag lépp lu ñu mës a wax def comme comme comme appel vidéo rek waa gi denc na ko capturé na ko denc waa ji nee nañ ki début mois de novembre bii la ñu bisi woon fii ci diwaanu Sénégal ñëwoon uniquement pour bëgg a takk uniquement rek pour bëgg fas xale bu jigéen bi soxna ndax moom jàpp na ni ñoom ñaar bëggante nañu xale bu jigéen mi paas na ko yaayam te nag beneen mbir bu gën a doy moo di bi bi mu ñëwee moom waa ji dafa woo xale bu jigéen ne ko kat jox ma sa numéro yaay pour moo waxoon ko kat ñëw naa xale bu jigéen daa ko sama yaay dafa am dëjëk sama yaay dafa dem fële dafa am dafa dem fii dafa dem faa loolu xam nga di ko di ko gëm loolu saa yu waaju waxee daal xale bu jigéen andi prétexte waa ji nag xelam commencé ñaaw mais waxul dara ci loolu xam nga rek jàpp ni peut xam naa ni dafa jotagul moom itam bi mu ñëwee wax na carrément ay mbokkam ni ka daa am benn xale bu jigéen bu ma yàlla boole te incha allah bu yàlla defee lu li gën dama koy takk soxna. donte sax ay mbokkam xawoon nañ ko cee mere ndax jàpp nañu ko nag moom ki moo war takk rek moom moo di mbokkam daal nee nañ dafa jékki-jékki rek ci benn semaine daal mbir mi mel dafa dëppandiku da dafa changé ndax dèjà nee na moom boo woowee xale bu jigéen bi du ko faale dèjà boo woowee xale bu jigéen téléphone jigéen du ko du ko faale daf koy ignoré pendant une semaine boo woowee xale bu jigéen xale xale daf koy ignoré mu jéem a xool ay contact sax yu nga xamante ni mën na ko jotee xale ko woowee ci beneen numéro bu xale bu jigéen xamee moom la xale bu jigéen ko faale waa ji ko ah nii la baax na waa ji nag daal di koy woo ci benn numéro inconnu menacé ko ne ko yow lu tax ma lay woo jëloo ma xale bu jigéen ko daal xam nga lan la man ak yow suñu diggante seet naa ba seet mënta nekk ci ñaari mbir ndax de un man yow bokkuñu waaso de itam man ak yow dama xool ni que ñu ne ma ñun ñaar suñu rawaan àndul bu ñu seeyee man ak yow du baax carrément lii waa ji nag daal di yëg loolu daal di commencé xam nga rek xaw a siisu un peu mu nekkat comme kii li ma gëm yëpp ndeke ndeke ay nar la dinaa ko woon nag nan la ak naka la xam nga whatsapp léegi dafa am li ngi naan flamme maanaam nit ki mën nga ko envoyé dara boo ko gisee rek loolu daal di dañ waa gi nag noonu noonu la jaare xale bu jigéen bi ndax daf ko daal di Euh, falaam ay vidéo xale bu jigéen maanaam seen appel vidéo envoyé ko ko ne ko nag comme que léegi nii la trois jours laa la may boo nanguwul li ma bëgg vidéo yi dama ko jël daal ko tasaare ci ñëw ñëpp jot ci ndax man dèjà damay waaj a ñibbi ndax yaa fi andi woon xale bu jigéen nag commencé patiner commencé tiit ndax ndax nañ xale bu jigéen moom amoon na benn maanaam faram boo xam ne peut-être kooku am na relation kooku nag moo ko bindloo plainte moom xale bu jigéen bi ne ko bindal plainte ñu yóbbu ko fa ma xanaa doonee benn bu ko defee nag buñ demee ñu wan leen lépp loo xamante ne ay preuve la bu ko defee nag moom waa ji dina daal di dellu ginnaaw noonu xale bu jigéen bi daal di bind plainte ñu ne ko léegi da ngay da ngay da fexe daal ba yéen ñaar ngeen gisee bu ko defee yéen ñaar bu ba ngeen gisee comme que ñun xamuñu këram exactement ñu jàpp ko. noonu nag ci seen plan waa ji xale bu jëm ne ko dama laa bëgg a gis dama laa soxla pour ñu régler problème bi une bonne fois boobu lan la plan noonu sax lañ daal di tegee loxo waa ji ko la nga xamante ni itam moom moo xew ne ko moom moo ko def mu ne xale bu jigéen bi daf ko daal di triandé arnaqué ko gëmloo ni ko daf ko daal di bëgg xale bu jigéen nag ne man porté ma ko plainte ngir tëj ko waaye lenn rek laa bëgg moom moo di vidéo ya nga xamante ni yoroon na ko ci téléphone am di ma ko chantage loole loolee lépp nag laa bëgg mu daal di dañ noonu la ko xale bu jigéen bi waxee ndax xam naa ne da bañ mbir mi daal di am beneen ampleur ndax xam nga itam say vidéo yoo xamante ni yaramu neen nga daal di def a envoyé ko góor xam nga yooyu moom maanaam bu ñëpp jotee daanaka yow sa der yàqu na waa daal noonu lañ ko laajee ba xam vidéo yi mën na dañ mën a dinaa ko dindi mais mom itam waa ji en retour fexe na ba porte plainte nekkat moom joxoon naa ko six cent quatre-vingt-dix-sept mille yu nga xamante ni daf ma ne que dafay jàng te te jàngul am naa ci preuve leer naa ñi léegi dama ko delloo porte plainte xale bu jigéen bi xam nga day naan yenn saa dañuy naan maanaam nit ki di nga <laughs> di nga yaakaar da ngay naxaate fekk sax en retour ndax boobu <laughs> kaw loolu nag moom mu gédal xale bu jigéen ba sax en retour moom waa ji moo ko daal di porte plainte ndax moom bi mu retiré plainte ba pare ci nag la ko daal di porte plainte waa ji daal ko koy porte plainte ñu ne ko ah léegi nag comme que waa ji po na kon il faut nga daal di fay li ngay fay nag moom moo di xaalis ba nga xamante ni moom moom nga ko lekkal. léegi nag moom waa ji nee na moom dindiwul plainte am donte xale xale bu jigéen nag dindi woon na plainte am finalement nag moom waa ji daal nee na il faut que ñu fay ko xaalisam ndax xale bu jigéen daf ko daal di nax lim ko gëm lu rek moom moo di ñoom daanaka bokkuñu waaso mu ne te carrément xamoon na carrément lan laa te moom nag kon comme que sam alal la bëggoon moom porte na plainte di dindi naa vidéo yi mais man en retour nag ko daal di dindi. moom nag moom moo bind bataaxal bi daal ne lekk léegi moom lenn rek la bëgg moo di ñu jox ko ci ay conseil ndax nee na moom lenn laa yaakaar ne que bu ñëwee Sénégal dina am jabar yoo xamante ni kat dina ko gëm loolu baax waaye nee na daal gis nañ ko Sénégal muy mbokk muy keneen ak keneen saa yu saa yoo leen gisee pour di leen woon affaire de mbëggeel dañ lay nax jaar sa kaw dem seen yoon mbir bi nag jamono bii mi ngi ci loxo yoon moom waa ji nag nee na parewul benn yoon pour bàyyi te nee na sax bis bu audience bi jeexee noonu lay jaaree dem ñi bi ndax dafa weddi Sénégal bu baax baax ndax nag ay nit yu fooret ñoom ñoo fi daal di nekk ndax moom nag nii la ko waxee xaw ma ne kat moo ko nax nag waaye kooku euh, tooñ na ko bu baax a baax mbokk yi mu noonu lii moo nekkoon tey langa nga xamante ni moo gën a fës euh, ci seen fait divers bi ndi leen jox di dégg suba jàmm incha allah mbokk yi jërë ngeen def ci ànd bi